mu ngeen commenté yéen tamit yéen ñuy si yéen ñuy topp tamit ñoom tamit yéen ñoo ñoo ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax alors euh, ba ndaxte waxee nag deux mois si ginnaaw euh, ki nga xam ne nii mooy Mario nekk nga xam ne moo nekk ex jëkkëram laa ko mën a tuddee léegi euh, parce que béyaay bi moom bu xasee ba génn ça mu toll nii ak ndaxte waxee mariage amatu fa donc mais moom deux mois si ne moom ndaxte ba léegi tasuñ te ñaan na yàlla musa si tas nañ dem déglu ki nga xam ne nii moo nekk Mario. kàddu yu nga xam ne yëkkati woon na ko gannaaw ba ne bañ ko yëkkati ay kàddu ne moom ak kii ndaxte loo tas nañ bi nag si c'est bon ñu leen dem déglu ki nga xam ne nii moom mooy Mario. samay tubaab bi dama koy dugal tubaab bi laay indaale su d'accord Mario réew mi namoon nañu la de noo dundee koor tant que célibataire ñu waxtaan rek ba sali célibataire non tey la waalu gën a ay Mario Mbaye tu es un grand célibataire nga naa da ngaa dégg damaa tas da ngaa tas ba ba mu kii nu mu maa la ko wax yaa ma ko yaa ko wax fan laay tas jëm astafurlah xaaral sama laa ban xaaral fi ay weñ fi nekk waaye tas jëm ndaxte damaa daje moom amul sëba mu ne maa ngi lay nuyu moom moo ko wax tey laa a loo kooku sama eh, eh, eh, doom la loolu révélation la de mais taxawal ma di wax ak man loolu révélation la nga ni tey nga loof gën a loof xale barke Serigne Touba kooku sama vie sama xol la bàyyi yooyu waay kon bàyyi xale bi non kooku duñ bàyyante sekkuñu ko mais Max bi neex na kon tas na tasul kon amul. ah Mario loolu amul. ay waay yéen kii bàyyi leen wax tas ay waay waay waay mais yow ñii duñ ma bàyyi. mais Prince. nga tas. waxal si ñii. tas nga wala tasul nee nañ petit camp bi. wuyaay Max baa ñu sama xol la lu mu yàgg yàgg ndaxte ma woon. waaw par exemple loolu si loolu ngeen nekk ni mais parce que dama ko laaj immigration Omar Seba naka ngay dundee parce actuellement tu unique. da ngaa da ngaa da ngaa da mu ne ma mu ne ma amul problème. garaawul koy muñ. non kooku man ak moom chaque jour ngay dégg. ah bon. bëgg. kooku sama kooku man moom c'est le sang. ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon gars yi nañ bàyyi yooyu. ma alors moo ngi noonu ngeen di kàddu yi nga xam ne ni ki nga xam ne moom mooy ndaxte loo waaw euh, ndaxte loo mais Mario mbay euh, da nga kàddu yi nga xam ne yëg na ko ne ñoom ñaar tasu euh, maanaam saa ji ko ko baatam même fekkee sax ki ngi ki ndaxte moom confirmé ne mariage seen diggante fu mu toll nii jeex na waaye ay mbokk lañ ça c'est sûr parce que dégg sànq jot naa information boobu de que ñoom ñaar ay mbokk maanaam sëy mbokk la kon ça veut conséquence yu nar am dafa gën a dafa nar a gën a bëri ose na nga déggee. Euh, Mariam Mboye kàddoom yi moom bàyyiwul jabaram tey la ko gën a bëgg tasuñu ñoom ñaar. ay kàddoom ci li ma dégg nit ku dëgg. Mm-hmm. nit ku nangu assumer ay responsabilités ci li mu bëgg. ci lu mu bëgg xamante ni mu ngi assumer ay responsabilités lim ci li mu bëgg sooy fàttaliku bi mu ko fi njëkkee yoon wax ci dama leen ne kii mm-hmm. dafa nopp jabaram. Mm-hmm. torop te jabaram bañ ko ci laajee dafa amee num tontoo ma ne leen jabaram dafa nopp jëkkëram na kilifa yi def seen wareef mm, mm-hmm. à cent pour cent waay fasewu ko jabaram la ndax nag kàddu gi góor a ko yor tant que déggoo may naa la sa baat ci ci ci laa taf alu shay'an bi xeyri isnihi muy ndigal li indi maanaam munoo maanaam maanaam maanaam ndaxte munoo dem ba laaj ko mu ne la jàpp na idd danga mm-hmm. déggul fase naa la dëgg la kon jabaru jàmbur la mm-hmm. ndax boroom këram fasewu ko dafa am yoo xamante nag bu ñu manigancé ki dafa bëgg jabaram mm-hmm. say yëpp ay am problème dëgg la force ma fàttali la ko sama kàddu wu njëkkoon xam nga ñun dafa am lu ñu dégg xamuñu ci biir tey kenn lañ déglu dégluwuñ keneen waaye euh, pour dire pour dire sànq maa ngi jéem di ko di ko woo. waay euh, moom moom mi nga xam ne nii mooy Mario Mbaye. Mm. mais nangagu si àddu. peut-être et c'est normal je le comprends. mais man woo naa man xam nga lu tax ma ma ni la ma ni la ma ni la ma ni ci dugg. dama xool depuis boobu moom réaction ci soxna si. mosul mm-hmm. wax lu ñaaw. Mm-hmm. fu ñu ko laajee ci soxna si dañ koy daf koy yëkkati. daf koy sagal daf koy tatagal benn. bi ñëpp naan tas na tas na tas na première sortie Mario Mbaye monument la Sidi di ko woy di ko woy di ko woy di ko woy bi mu ko nee seeri ndaxte dafa tëb mhm. yaa ngi fa yëkkati xaalisam di ko baaris Sidi woy na ko nu ne faale woo waaye ba mu séeri ndaxte dafa tëb jël xaalisam di ko ko baatare mhm. kon ba tey wax buy am fenn lay amee ba léegi mais ku góor ki mu ngi jàpp ni kii sama soxna la mu ngi koy sàggal mais bu dee lim ñuy won moom lañ gis sa biir boo fe ne yaa xam wala li ngay dund boo dëggoo dëggoolit yaa xam waaw moo déggoo moo tax li ma wax mais li nga nuy woon ñu koy gis ñun ñu ngi ciy teg suñu bët te dafa rafet mhm. ci lañ mën a wax ndax duñ wàlli duñ xub samaan mhm. doon luñu ay Hercule de jë nekkuñ ci biir xolu nit toj gémmiñu sàmbi xam ne muy wëli sa ko gën te yu sundur way na ko bëri pexe weesuwul nettali sa géntu moroom mhm. loolu dafa am jigéen dangay ngay muñ maanaam benn lu metti metti dafa am nooy arrangé bu ñu fi bàyyi ñëpp takk la yow yaay kan dama koy doxaan dama koy doxaan muy neex dama lay takk moo daax nee naa la moom moo nañ bàyyi xel ndoxaan du takk mhm. doxaan da dangay doxaan dangay reew ku góor ki di la ko nangul parce que dafa bëgg amagul day waxaale ba léegi. benn doxaankat may wax bu waxee nga déglu. waaw du ma doxaankat nag. doxaankat nga naturellement barki Cheikhul Khadim ndax man man kenn laay nopp ñëpp xam ko man du ma doxaankat. man moom du ma doxaankat. waaw hmm, ñoom ñoo si TikTok bi. muy demee noonu. moomoo lu leer laa lay wax. maanaam góor góor dafa am nu muy dundee gis nga góor li liyam la am xanaa xamoo ni góor a gën a dof ci àdduna. Mhm. góor. yow góor méttiwul góor góor xamal fi nga koy téye rek li ci des yëpp garaawul gis nga góor du foqale góor doo foqale noonu la demee ci jigéen gis nga góor boo yoree benn bët bëgg nanaa xool ko jigéen boo xoolatee mu saf la nanaa mooy gore da ngay xool jigéen di gis taaram mais yow boo koy xool na sa xel ne ci nanaa yow jàppal ni kii may xool nanaa la mu mu mu yor daaguwaale bu baax di daw nga baal ma ci kàddu yi maa ngi jéggalu kilifa gi respect moo fi toog moo tax may jël ci moom exemple <laughs> yaa ngi déglu mu dox daaguwaaleem baax nga koy xool bu ko gisee neneen jàppal ni kii di daagukat cum yow jàppal ni cum sama nana may dox nan laa ilaaha illallaah maanaam foofu dangay gore sa diggante ki nga am ndax nit ki balaa nga naan ay ñaareel ak ñetteel fekk sa aawa kontaan mais looloo jafe nag loo rëy waaw d'accord naa moo tax ma lay argumenté bu baax a de. ba léegi daf cee bëri Sénégal yenn góor yu ma ci lu ma ci lu ma ci mën a wax yenn góor ñu ci bëri ñu ma ci mën a ñu ma ci mën a indil ñoo xamante ni dañoo bëri fen dama ko am sañ naa tudd turam ndax dama ko yeb Aba ko taalibe la maag mooma yem dañuy takkale mu takk aaw at jotagul Aba ne day takk ñaareel ñaar ñëpp tas neen Dany Potas waaw parce que daa fen boppam dafa def lu mënut. yow sa benn rek dëgërut. mu lay muñal. wallaahi. waxoon si bëgg jigéen. yaa ngi comprendre moo do mooy do mooy dafa am yoo xamante ni gars yi ñu ngi koy def ñu foog ni ay responsabilité la ay dama damay bañ a doxaan maanaam dof la. Mm-hmm. ab ndof la. moom moo barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sama baat ci kaw waxoon naa la ko fi. nee naa la su nii nii nii nii su ma demoon bay takk. Mm-hmm. xale jigéen ñi jubuñu ñu ci bëri. Mm-hmm. bàyyi ma leen xel mère laay takk ma am doom ñàkk am doom ma sante ko suñu borom ngir jaamu ca yàlla. dëgg alors ñoo ngi nuyu baax a baax Oumou Coulibaly donc moom nee na mari bu er, irresponsable la mais on sait pas peut être euh, Aïdara Sall je vous suis depuis Italie ñoo ngi nuyu bu baax a baax di nuyu waa yëpp. alors Zek mën nañu mon frère doomu ngi lay ziar bu baax a baax Oumou Ndiaye. Euh, moom tamit moom ñu topp ñoom donc ñoo ngi di ziar bu baax baax ak ki nga xam ni mooy ay Mbaye Fama Kassé yow moom suñu nga boobu alors naka gisee kàddu yi nga xam ne nii jëkkër ji maanaam wax na ko et pourtant euh, boo diggee ay kàddoom da jàpp ne ay kàddu yu sincère la. pour man mhm. bokk effectivement voilà. Mhm. bañ na ko ba naa dafa jël affaire de bëggee ak yow teg fële. mais def ni maamu ay mbokk rek c'est le mais mbëggeel bi la jiital bul ñu def ko mm-hmm. teg fee parce que bu jiitalul woon mbëggeel. Mm-hmm. kon mbokk ngi lay lay biral kese yam ci. waaw dafa njëkk a wax ni dafa njëkk a wax réaction bi moo garaaw. Mm-hmm. man maa damaa tas réaction bi. est-ce que est gis nga ko. daal ne xaaral ma laali bant. kon lii seetaan naa ko bi mu génnee juste rek dama ko seetaan. comprendre nga. Euh, mu ne damay laali bant parce que bëggul xëy na liñ ko koy liñ koy gàtt ngaal mu am. kon man ba léegi damay rejoindre Norey nii ku bëgg soxnaam la may nduróol ci waxam te aussi lii béyaa kese la ndaxte ba léegi prononcé wul ne Mario mbaay sama jëkkër moo ma doon maltraité moo ma doon def nangam te sëy du jëkkër kese surtout sëyu Sénégal. du jëkkër kese foog ñu bàyyi ci xel. suñ demee nag ba émission bi intégralité bi génn ñu xam wax ji lan la wundu exactement bu boobaa dinañ ci mën a gën a prononcer mais actuellement comme que Béya rek moo génn dañ koy soutenir en tant que femme mais aussi soutenir ñoom ñaar ñëpp parce que sama maam da daan wax naan benn lay pàq la gis nga nit bi bi bi xuloo ba nga ñëw di ko àtte du mësa wax ni maa maa tooñ du ko mës a wax dañ maa tooñ day wax moo ma def nangam moo ma def nangam nga dégluwaat keneen mu ne moo ma def nangam moo ma def nangam soo àndut ak sa xel doo xam fan la dëgg féete dégg nga voilà donc Mario ni mu réactionné yi nii ku bëgg soxnaam la may nduru maanaam réaction wu responsable la réa la la la moom la jëfee. mais vidéo yi pour pour fàttali euh, mhm. maanaam bu yàgg la bu yàgg la. waay ça fait deux mois. effectivement benn bi nga xam ne nii foofu stade de Bongor. Mhm. maanaam mhm. xam euh, xam nga lu tax yow nga c'est-à-dire yow da nga doy waar macha allah. parce que fàttali fàttali dafa dafa baax rawatina Sénégal dafa baax parce que fii dañoo gaaw a fàtte da ngay gis. cest à dara xew ñu ne lii de nangam ak nangam daal di réagir ci actualité bi alors que dañuy bàyyi li passé. mais mais mais mais mais ah. Michel nee na yow li nga <laughs> donc <laughs> Michel ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax kenn du moom célibataire bu mag bi donc euh, euh, gis nga gis nga euh, dafa am lu garaaw. muy muy muy muy dafa dafa dafa dafa dafa réagir comme kilifa ni muy réagir ndaxte aussi bi ñu ko laajee dane duma ci tontu. su ma juumul bii mooy première sortie bu mu nangoo wax ni sama sëy bi ma fa jógee te loolu rek lanu ñu déggagum xamuñu ndax keneen moo ko doon subir loo loolu ba tax mu daw parce que am na fi mhm. xam nga sànq maa ngi wax mais bàyyiwu leen ci xel dama ne mhm. sëy du du du borom kër kese bu doon borom kër kese day neex bu doon sa jëkkër ji nga tànnal sa bopp mu tànnal la boppam ngeen bëggante te yàlla rek tax kon sëy warul ay muñal yooyu yëpp du fa am parce que ki la bëgg ki la bëgg ba takk la génn la ci biir jigéen ñëpp na yow rek la kooku loo ko def mu neex ko waaye ki nga xamante ne danga koo tànn ci biir góor ñépp kooku lu mu la def mu neex la est-ce que nga rawatina koo xamante ni da ngeen a génn je sais pas six ans wala lu teg ba takk ñëw kon kooku xamante ngeen kooku bëggante génn parce que 6 ans du benn fan du ñaari fan. mais ba tey ma rejoindre nooree ni sëy bokkul ak li nga xamante ni moom mooy ngoro parce que ngoro mën ngeen di làqatu di génn yéen ñaar. Mm-hmm. waaye bu ñu demee ba sëy am ci kilifa yi dañ ciy dugg. Mm-hmm. te nga baal ma ma rebondir. ci ci ci ci foofu gis nga bari na sëy yuy tas. Mm-hmm. billaaxi bu doon ñaar ñi bëggante kese du tas. ma wax la ko tey. bari na jigéen ñoo xamante ni tàggoo nañu seeni jëkkër mais ñoom moom rek lañ nopp mm-hmm. góor ñoo xam ne bàyyi nañ seeni jabar ndax seen yaay te seen jabar kese lañ nopp mm-hmm. am am ci ñoo xam ne dañuy dem balay choisir loo entre choisir sa jabar ak ak man te c'est-à-dire loolu du komba parce que yow maa la ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba ñëw xaw maa rey. ma jur la boot la rogganti def la ni nga mel nga dem takk kenn indil ma ko mu war a doon sama doom ma xoolee la ko yow mi ma ko yow mi ma ko fi indil kon xam nga loolu du kombaa ba choisir di am mais ba moo fi bari malheureusement ce qui est malheureux am na ñoo xamante ni góor ñoo xam ne dañuy dox rek mais dee bu yàgg xam lu tax parce que ki bëgg la nu nekkalul te ki leen ko xañ mooy seen waajur walla seen rakk walla seen mag mhm. am na góor ñoo xam ne dee nañ bu yàgg xam nga lu ko waral parce que bu ñu sañoon seeni ay mbokk ak ak sox seeni ak soxnaam ñu booloo nekk benn mais amu ko suwaat ma ngay luwe ji amaan nag ji góor ñi sax am na am na ci ñenn góor ñoo xam ne mënuñu sax luwe ba ñuy luwe mais bañ a bàyyi seen soxna bañ a bàyyi seeni doom tax na ñuy luwe ji te bu ñu sañoon loolu du am dañuy boole moo tax bi sujet bi nañ ci teey nañ ci tey bu baax a baax parce que ñaar ñu bëggante dafa mel ni ñooy wax. mais voilà euh, ñaar ñu bëggante ñoom ñooy wax euh, alors lu si mën a maanaam jàpp rek mooy euh, c'est juste des question mm. peut-être après.